lii nii dafa am solo ci dëkk bi ndax comme ni ngeen ko waxee lépp lu méngoog lislaam tey jàppale waa dëkk bi dañoo war a taxaw ci loolu man nag man maa nekk directeur général BNDE def naa fa at ak lu teg tuuti te bi ma ñëwee li ma gën a soxal ci mbir mi mooy position bi ma am nekk actionnaire majoritaire de Arrahma président du conseil d'administration mën wahak euh, Lamine Fall pour lancer banque bi parce que banque bi ñun ñoo lancé euh, lancer Arrahma ci Touba nek priorité Biñu ci Khalif bi joxe ndigal wante bi mu Mengo aussi suñu xalaat ci dëkk bi Dar Xudos gi ñu ko defee du hasard Tay bo de Arrahma di xool ña a liggéey cinquante 50% cent Dar lañ dëkk kon dafa bokk ci lii Serigne Cheikh bëggoon ñu am suñu diine ba pare mu mën a méngoog jamono jàng te mën a nekk ay jullit nekk ay murit yu wér jàpp naa ne lii dina ko firndeel suñu amul ay diplôme wala jànguñu woon tey kenn du leen recruter ar rahma sëñ bi bi jiite agence bi même chose fii la dëkk moom itam jëluñu ko ndax dafa sant Mbàkke wala dafa dëkk Daaru Xudóos dafa am xam-xam am expérience ñu jël ko jàpp naa ne itam Touba ar rahma daf fi war a am position boo xam ne mën naa am du ko am faneen en tout cas mooy suñu mébét li tax ñu njëkk fi créer agence bi itam loolu la euh, te jàpp naa ne bu ñu liggéeyee war naa mën nekk kon rafet nañ jot lool nag ci ñi fi teew tey pour doxal mébét boobu arrahma mën na gaaw a liggéey mën na am résultat rapidement en tout cas BNDE bi ko meññ daaw ba mu fay ñëw fekkoon naa fa ay jafe-jafe yu metti parce que dama fekk ay dossier nekk fa yu compliqué am na ñu sax ñuy wax ci euh, réseaux sociaux yooyu temps yi di ma tudd di tudd jafe-jafe yooyu mais nag ma leeral man bi may ñëw dossier yooyu falaa leen fekk problème yi banque bi amoon dossier yooyu ñoo ko indi li ma def yépp ci 2023 mooy fexe ba dossier yooyu ñu réglé ko mooy bor bi ñu leboon BNDE man mësuma lebal kenn bor ku tudd Dermo wala mu tudd Xaadim Ba ci télé laa nekk ma bëgg mu leer parce que dafa am ñu ciy wax fan yi ba nit ñi di ma envoyé ci réseau sociaux yi naan ma lii nu mu demee changement de régime nag bu amee day am ñoo xam ne dañuy manipuler mais man loolu du ma mën laal BNDE dama ko fekk mu nekk ci ay difficulté ñu lijjanti wax ak bi ba yenn difficulté yi ñu réglé ko déficitu milliard la waroon a am ay milliards laa wax ay déficit dinañ ci ñëwaat ci fan yi ñu fexe ba mu am bénéfice su quatre cent millions à peu ñu liggéey sur l' année deux mille vingt ba tey commissaire aux comptes yi wax nañ ñi war a càmbar banque bi càmbar nañ am nañ bénéfice su neuf milliards presque ci benn at kon loolu ku liggéeyul du ko mën def beneen bi ñu fekk capital bi onze milliards yóbbu ko cinquante deux milliards tey BNDE mooy banque bi ëpp capital ci Sénégal loolu ku xamul liggéey wala mënoo liggéey doo ko def ñu fekk total bilan bi maanaam koom-koomu banque bi nekk trois cent soixante milliards à peu près ñu yóbbu ko cinq cent cinquante cinq milliards 37 de glissement nekon 17e place ñu yobbu banque bi 10 premières places té Inshallah reine. liguey def janvier février mars avril normalement bu continuer banque bi dina dugg ci premières banques du Sénégal lol nag liguey 10 ans ou wala 15 ans Yal suturaal ñu ñu ko en une année leeral bi dafay am solo parce que am na ñu jaaxle naan ma way xaw ma naka Kewoulo nee na dañoo lebal xaadim ba quatre-vingt-cinq milliards Ablaye Niane moo nekk ca banque ba Macky Sall la ko lebal loolu du dëgg banque ba lebaluma kenn ku tudd Dermon wala kenn ku tudd xaadim ba problème yi ma fa fekk la régler ko ci kattanu yàlla ak yonente bi ak sëñ Touba.